ñi nga xamante ne ñooy téléspectateurs yi safoo 313 digital je sais pas ndax je lis au gens la communiqué euh, communiqué bi nga xamante ne moom la ministre de l'intérieur génne mhm. euh, topp ci objet bi mooy Euh, dissolution bi nga xamante ne opté nañ ko pour parti bi lee di PASTEF PASTEF mm. mooy parti bi nga xamante ne euh, moom la Ousmane Sonko jiite defe naa ne bokk ci euh, parti yi gën a ràññeeku ci langue politique bi ci Sénégal bu nekkul deuxième parti tamit defe naa ne peut-être ñoo nekk troisième ndax élection yu ñu génn ñoo nekkoon troisième mm-hmm. parti APR moo jël premier wala coalition benn Bokk Yaakaar dem ci réew mi jógee ci réew mi ñu ñëw ci parti boobulee nga moo di euh, Pastef Pastef mhm. boobu nag gannaaw ba ñu jàppee tey seen ki nga xamante ne mooy njiital parti li mu nekk ci Ousmane Sonko euh, lii nga xamante ne mooy mandat de dépôt gannaaw bi mu jàkkaarloo mhm. ak juge bi nga xamante ni moo di Omar xam Diallo mhm. def nañu benn communiqué boo xamante ne le ministre de l'intérieur di Antoine Félix Diome génnee ko ne il a euh, parti politique boobu nga xamante ne moo di euh, Pastef mm-hmm. objet dissolution du parti politique dénommé Patriote du Sénégal pour le travail l'éthique et la fraternité Euh, PASTEF enregistré sous le récépissé numéro 17 226 MINTSP DGAT euh, DLP du 6 février 2015 le parti politique PASTEF à travers ses dirigeants et ses instances, a mm-hmm. fréquemment appelé ses partisans à des mouvements insurrectionnels, ce qui a entraîné de lourdes de nombreuses pertes en vies humaines, euh, de nombreux blessés ainsi que des actes de saccage et de pillage de biens publics et privés. Les dernières en date sont les graves troubles à l'ordre public au cours de la première semaine du mois de juin 2023 après ceux du mois de mars 2021 suite à ces événements qui constituent un sérieux et permanent manquement aux obligations des partis politiques et conformément aux dispositions de l'article 4 de la Constitution et de l'article 4 de la loi numéro 81 17 du 6 mai 1981 relatif aux partis politiques modifié par la loi numéro 89 36 du 12 octobre 1989 le parti politique PASTEF est dissous par décret numéro 2023 1407 du 31 juillet 2023. En conséquence, les biens du parti dissous seront liquidés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. à Dakar le 31 mai, le 31 juillet 2023, le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome. Euh, je pense que fu mu toll nii tu tournure bu euh, graaw wala. peut-être boo xamante ne parce que Kébé ñu ngi ko doon wax sànq ne euh, lu naar bu mag bi du wax xaw ma da koo déggee ci ruum la ni lu naar bu ndaw bi wax rek fekk na mu mm-hmm. dégg ko ci ruum la ñu ko doon wax mm-hmm. waaw euh, parce que lépp loo wax lépp lu luñ def ñoom fekk na dañuy yebal nit ñi ñu préparer euh, nit ñi ba nga xamante ne euh, dañuy yàgg nañu taafantoo lii. Mhm. parce que dañ ko war a dissoudre Pastef ay terroriste lañ Pastef ay nangam ak nangam lañ euh, Moustapha Diakhaté yàgg nañ dégg muy wax lu mel noonu Maître El Hadj Diouf yàgg nañ dégg mu wax loolu lu mel noonu. ñoom mhm. tamit yàgg nañu menacer waa Pastef yàgg nañu menacer ki nga xamante ne mooy le leader du parti di wuyoo ci turu Ousmane Sonko dem nañ ba ne Ousmane dañ ko war a rey xam naa ku ñu ne. dañ ko war a rey te jàppuñu ko ka wax bu ñu demee ba dissoudre parti ba mu bokkoon tamit kenn du ne guléet defe naa ne amul surprise boo xamante ne am na actuellement fii ci biir Sénégal ndeya effectivement euh, Vito comme ni ñu ko liralee euh, bi li mhm. communiqué bi nga xam ne Antoine Félix Diome moo ko daal di génne muy le ministre de l'intérieur euh, dissoudre le parti boobile di Pastef ginnaaw ba ñu tegee loxo ginnaaw ba ñu emprisonné ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko Kébé effectivement comme ni ñu ko gisee ñun ñëpp ah mm-hmm. mu doon loo xamante ni si nii euh, sànq la communiqué bi génn moom Antoine Félix Diome kon euh, daal di koy xamle que ni mm-hmm. bi le parti Pastef en euh, xam ne jot dafi mm-hmm. jaar yëpp ay mbirum terroriste ak appel à l'insurrection dañu koy ci koy confisquer li li nga xam ne lii nu ko sànq jàng nga ko tey parti Pastef du dissolution mais li mu amoon yëpp comme ay bien dañu koy daal di confisquer divisé mu mm-hmm. juraat beneen mbir boo xamante ni si mm-hmm. ni tey bu ñu dissoudre parti Pastef mm-hmm. ces députés maire maires est voilà euh, tey mandat yooyu yëpp en tout cas ñu ngi nekk en jeu en même temps Bijou euh, Clédor Sène euh, mën nga ko woo pour internautes yi nga xam ni ñu ngi ñuy seetaan moom Clédor Sène mi euh, nga xam ni émission tay bi émission bii nii moom la ñu ko fas yéene jagleel en tout cas mais nag euh, par téléphone la ko jël parce que pour le moment sore na euh, fi nga xamante ni si nii moom mooy xaw na sori kon Sénégal nekkoon ci njiital mouvement Clair Vision gindi askan bi ngeen ko gisee noonu Ousmane Sonko dem na prison mmh. dissoudre nañu parti bi mmh. mu doon loo xamante ni si nii bon ñu mmh. bare bari mën nañu wax ni bettul leen mhm. euh, moom euh, Clédor Sène la ñuy xaar euh, bu yembandee ci téléphone bi ñu daal di koy jël am li nga xamante ni si ni moom day réaction am effectivement même avocat Ousmane Sonko itam mhm. seetaan ngeen li nga xamante ni si ni moom moo di seen ay réaction est parti Pastef tey yomb na dissoudre d'accord légalement bon mën nañu ko dissoudre mais est mhm. tey Pastef ak ni mu fi mu toll ak fi mu àgg ci Sénégalais yi mën nañu wax ni moom parti la boo xamante si ni bu ñuy bu ñuy dissoudre sais pas. am na euh, benn duggante Kébé boo xamante ne pourquoi attendre ba tëj Ousmane Sonko soog a ne je pense que euh, Ousmane Sonko ak parce que Ousmane Sonko c' à part Pastef c' est à part. voilà bu nañu affaire yi. Euh, fi mu ne nii. boo hmm. xoolee dañu ko condamné sànq. ñu teg ci tuuti rek moom ministre de l' intérieur Antoine Félix Diome jël décision ni dafay dissoudre parti Pastef. c' est à dire hmm. hmm. tey Pastef Ousmane Sonko. boo xoolee Vito parce que nag gis nga. yàlla li olof Ndiaye di faral di suul kër du ko teree feeñ mm-hmm. Ousmane Sonko président Macky rajee na ko mm-hmm. mu doon député jaare ko ci askan bi. Mhm. Euh, président Macky Sall euh, xañ ko en tout cas son liste sa liste titulaire. Mhm. Euh, mu mu mu mu dem ak ñi nga xam ne ay suppléants ma gagné. Mhm. tey jii nii. mu doon teg ci nekk maire bu maire bu jigéen Ziguinchor. tey bu fekkee maanaam lii nii duñu guleet ci ki nga. xamante ne nii mooy effectivement duñu guleet voilà moom mooy duñu guleet ci Ousmane Sonko mais cette fois ci nag dañu ko. teg mhm. teg ci dissoudre parti Pastef ba nga xamante ni si di moom euh, milieu di Ousmane Sonko mënatul def benn activité politique. pour le mhm. moment kon euh, mën nañu jàpp que nii rek. Mhm. Euh, mais est-ce que dissoudre parti Pastef doguma la Kébé jiituwul ci communiqué bi nga xam ne. génn xam nga xam nga xam nga boo xoolee. boo xoolee tey boo xoolee tey président tey Ousmane Sonko tey ñu tëj ko ci kaso. mënul tere woon bu fekkoonte ni parti Pastef bi ñu continuer mhm. ñoom waa Pastef mën nañ ko investir mu nekk ci camp ci kaso bi mhm. ñu dem bu ñu ko falee dañ koy jëlee kaso yóbbu ko biir biir palais mais fi mu nii ñoom euh, en tout cas anticiper nañ yooyu yëpp léegi parti Pastef mënatu la investir kenn mënatu la euh, campagnal kenn parce que dissoudre nañu euh, parti bi ñu ngi ñu doon wax naan voilà ay plan B wut mhm. beneen beneen plan bu dul Ousmane Sonko tey loolu yëpp mënatu la nekk parce que parti Pastef ci boppam moom moo existe sul moom moo existé existeetul kon tey ñii di patriotes yi dañu leen rey politiquement moom mi nga xam ne moo di Antoine Félix Diome ci dogal gi nga xam ne en tout cas jël na mhm. euh, euh, si ni moom moo di Ousmane Sonko bisu bu fekkente ni yemb na mhm. euh, ñu daal di koy jël ko par téléphone moom mooy Clédor Sène ci antenne bi bu ko defee ñu jël ko comme ni ko ni ñu ko annoncé woon rek mhm. moom Clédor Sène bi nga xamante ni si ni en yàgg ngeen ko yàgg ngeen ko ko laajte. Mhm. Euh, mu euh, fas yéene amal ay euh, réaction am gannaaw ba ñu tëjee kile di Ousmane Sonko. Mhm. daa di kon nu mu tuddati dissoudre parti Pastef voilà ñu ñu ñu ñu xool ko en attendant. voilà merci beaucoup Vito ñu gis ne mhm. sànq yaa ngi koy wax à chaque fois dañuy dégg seen ay kàddu. ñu daal di wax que ni parti bi léegi parti Pastef dañ ko war a dissoudre parce que lii ak lii. maanaam jël ay yu bëri teg ko ci ndoddu waa Pastef. te tamit déggoon nañ fi ki nga xam ne ab communiqué boo xam génnoon na ñuy wax mhm. que ne euh, dañuy tere euh, mhm. maanaam bépp activité politique boo xam ne Pastef da ko doon def mhm. dañ koy tere kon loolu yi ñu ngi doon jëm ci dessous de parti bi di Pastef parti politique activité daf ko war a def tey buñ ñëwaatee Antoine Félix Diome ministre de l'Intérieur jël bi nga xam ne dogal kon est-ce que war na aussi bett ñi nga xam ne askanu Sénégal